après l'agent judiciaire de l'État qui s'est constitué partie civile dans l'affaire Ousmane Sonko il y a deux semaines. Un pool d'avocats chargé de défendre les intérêts de l'État a également été mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans tout autre concernant les dégradations, pertes et préjudices infligés à l'État du Sénégal lors des manifestations liées à cette affaire. L'État du Sénégal, dans sa mission de préservation des intérêts entend se défendre devant toutes les juridictions pour obtenir réparation des dommages et préjudices découlant de ces infractions Le collectif des avocats de l'État a tenu à répondre aux 142 personnalités qui pour demander au de l'État Macky Sall de libérer l'opposant politique Ousmane Sonko et l'annulation de la dissolution de son parti, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la que nous partageons tous ne saurait différencier le traitement des citoyens devant la règle de droit, ni passer par pertes et profits la profanation sauvage du sanctuaire universitaire, de l'incendie criminel de la faculté de droit. Des pétitionnaires dont l'intellectuel sénégalais Philouine Sarr ont plaidé pour la libération d'Ousmane Sonko en raison de son état de santé jugé dégradant par ses avocats Mais le collectif des avocats de l'État s'oppose et rappelle que quelle que soit la légitimité d'un motif humanitaire ou sanitaire, le fait qu'une autorité fut-elle l'autorité suprême de l'État, puisse demander à un procureur de la République, quel qu'il soit, de mettre des personnes en liberté provisoire malgré la saisine du juge d'instruction, est une catastrophe judiciaire.